Oustaz Modou Fall première question bi la ñuy ñëw jàllale léegi nii kii mu ngi laaj naan Oustaz mon mari a deux épouses pour la Korité avec qui il doit passer la fête la première pense que notre époux doit passer toutes les fêtes chez elle est-ce normal moom mu ne ñaareel la léegi dafay laaj ak korité gi fan la jëkkëram war a passer korité bi parce que nee na jëkkëram dafa jàpp ni fête yëpp Euh, kër aaw bi la ko war a la ko war a passé noonu laa comprendre question bi. jërëjëf alaaji Pape xam nga l'islam moom du aada. Mhm. aada yi Sénégal nag dañu tàmbali boo tukkee boo ñëwee ci aaw bi nga war a dem. Mhm. soo jógee Màkka ci aaw bi nga war a dem. même boo tukki woon sax dem seen dëkk yàgg fa boo ñibbisee dañ naan demal ci aawo bi. moo gën a rafet nag. mais du aada du diine. waa mais aada bu rafet la oustaz mais diine xàmmeewul aada li mu xam mooy lu logique. waaw dëgg la tam. sa jëkkër moom fu ko korite fekk mu aye fa rek fa la war a korite. ah ci ay gi. ça ci ay gi rek. Ah. su ñaareel bi ayee na xam ne korite gi sansam la moom mu aye. waaw mais awo yaay awo yaay yaay. suñu awo yaay suñu yaay awo yaay loolu tam dafa dafa jar a bàyyi xel. aada bu rafet la. <laughs> mais daal amul benn ngaañ bu dee dafa dem korité ci ñaareel bi en tout cas daal xëy na rafet na hmm. ki yor ñaari kër su ma nee waxtaan ak ay soxnaam ni leen kat comme tabaski ak korité sunu feet la ñun jullit ñi hmm. bu nu mënee àndandoo ñun ñëpp famille bi dem ci aaw bi non fu ñu ko mën a defee rek ça dépend ci ñoom. ok wala kër parents yi. waa kër parents yi. Hmm. dajaloo ñun ñëpp. ñu añandoo reerandoo loolu dafa neex dafay dundal mbokk dëgg la mais nag ñaareel bee war a aye wala aawo bi moom moo fi jiitu ci moom lañu war a koritee moom loolu du diine hmm. moom daal ku mu tombeek ci sak ay yaa moom ay googu moo xam korite la moo xam tabaski la hmm. Hmm. leer na d'accord ah <laughs> man daal aawo yaay bee ma xaw a jaaxal donc loolu defe naa leer na euh, ci question bu njëkk bi mais dem ci aaw bi gënul rafet. <laughs> yow Pape xanaa aaw yi dañ laa yónni. <laughs> gisoo ñaareel bii naan ma may ñu jàmm yow da ngaa doy waar <laughs> te ñaareel dañoo capable dañoo bëri histoire dañuy dugg ci kër yi indil problème aawo yi. waaw mais tamit Pape aawo yi dañoo tàmm naan ay ay tabaski maa war a ayeeg. ñoo ko fi xaar nag. yenn saa yi nga dégg ku naan ku naan korité parité sa kër ñaareel. wala maa yow ba dara dul dara. waaw mais bi dara doonee dara kay leneen ñëwaat na. maa yow ba dara dul dara léegi dara doon na dara kay. foog ma wut dara nag. <laughs> mu ngoog loolu defe naa leer na. kon njaay moo di. defe naa duudu moom ci yow lay aye bisu korité <laughs> defe naa c'est clair <laughs> fi mu ne ñaareel yëpp soulagé wu nañu yow moom fi la la aaw yi di bàyyee aaw yëpp nañ la bàyyi tey aaw boo romb na la xeelu allez deuxième <laughs> question ñu jox ko oustaz Modou Fall kii mu ngi laaj naan oustaz euh, euh, quelle est l'importance de donner à manger euh, que prévoit Allah euh, pour les personnes euh, qui adorent donner à manger maanaam ñuy joxe lekk lu leen suñu borom di di fayee. jërëjëf alaaji Pape yonent bi sallallahu alayhi dañ koo laaj ni ko ban lislaam